bismillahi irrahmani irrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq naasiri ilxaqi bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa maqdaarihi al-aziim wa radiya allahu tabaraka wa taala عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سورة الطور ولا سورة والطور saaru Makka la di ñeent fukki aaya ak juróom-ñeent bismillahi arrahmani arrahim wa tuuri wat naa ci jabalu tuur mooy doj wa suñu boroom waxee woon ak sayduna Muusa alayhi salaam wa kitaabin waat naa ci téere mastuurin bada buñ bind fi raqin ci këyit manchuurin bada buñ wasaare tawraat wala muy alquran wala muy bépp téere buñ mos a jox ab yonant wala muy téere jëfu jaam bi ndax suñ dana jox ku nekk téereem yowmal qiyaamati ne ko iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا gannaaw dafa nakiral kitaab moo tax firi yi di jantalu yii yëpp mën naa ne yii yëpp it muy ñaari ngëñ wal bayti ak néeg ba gëñ naa ci néeg ba almaamuur yi bërëb buñ dundal ñu ne baytul maamuur mi ngi ca asamaanu ñetteel ñii ne asamaanu juróom benneel ñii ne asamaanu juróom ñaareel am na ñu ne sax asamaan bu njëkk ba am na ñu ne bu ñeent ba am na ñu ne kawe na juróom ñaareel ba mi ngi ci suufu arsh wax nañ ci wax yu bari am na ñu ne sax mooy kaaba gi ci boppam ndax kaaba gi yàlla nga koy dundale xujaaj yi ak ñi koy ziyaar rot na ni yàlla dana ko dundalee lu tolloog juróom benni junne juróom benni téeméeri junne ak mu jot su ca nit ñi matewul sax mu mottale ko malaayka yi waaye defe naa ne romb nañu ko fi baytul maamur xadis ju wër wane ne na mi ci kaw asamaan baytul maamur yàlla ko seexale kaaba gi ay malaayka di ko wër bés nekk juróom-ñaar fukki junney malaayka dinañ ko wër jaamu fa seen borom bañ ko defee ba léegi juróom-ñaar fukki junne yu ñëw duñu dellu si fi mu ne nii su daanu woon ci kaw suuf ci kaw kàmb gi lay daanu sama borom ma ngi gëñ ci néeg boobule wasaq fi gëñ naa ci téeg bi almarfoi bada buñ yëkkati muy asamaan yàllaa ko def muy téeg bu ñu gisul lu ko yenu lu dul kattanu yàlla subhaanahu wa taala wal baxri al masjuuri wal wat naa ci géej gi al masjuuri gada guñ feesal gada guñ feesal ci ndox ndax géej yàlla ko feesal ak ndox wala gada guñ feesal ci safara ndax yowmal qiyaamati géej yi la yàlla di def ñoom ñëpp ñuy safara mu yokk ko ci safaraay jahannama yal nañ ci yàlla boole musal am ñu ne dee géej la gu nekk ca suufu arsh xóotaayam toll na ni diggante asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ñu ne ndox mu tala nga fa ñu di ko tuddee baxrul ca la yàllay dëkkalee jàmm bu ñëpp dee yàlla dina digle mu taw mu tawee ñeent fukki bëccëg ñëpp saxaat ci seen bàmmeel yi dekki ana lu jaral yàlla ngëñ yu mag yi ni inna adaba rabbika naka mbugalu borom sa yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam la waaqe aji tàbbi la ci ñi ko yi yelloo yàlla buñ ko yelloo yaaral bi yàlla su gëñul sax li mu wax dëgg la rawatina mu gëñ ne ba pare joxe déclaration bu rëy ni bi mu joxe mooy sama mbugal dina tàbbi su waxoon ne kenn mënu ko tere tàbbi sax ñu xam ne bu tàbbalee dara kenn mënu ca dara rawatina mu teg ca maalahu detti ko ñeel min daafeeñ aji jëy kenn mënul tere mu tàbbi Seydina Omar dafay dox ci mbedd Medina ba dégg kuy julli di jàng soolata tuur naka la déggee nga ñi wa tuuri wa kitaabin maskuur fi raqin manshur wal bayti al ma'mur wal saqfi al marfu' wal bahri al masjur inna adaba rabbika la waaqi ma lahu min daafi mu ne qasamun wa rabbil kaabati xaqan mu tàggali ko sabab ne wallahi ngeen ji waat naa ci borom kaaba gi ne dëgg la liggéey boobu mënatul téye boppam mi ngi war mbaam eh, mbaam mi mënatu ko téye mu wàcc tànkam yi attan nañu ko mu weeru ci mur bi ab jiir naka la delloo këram te dina weer ñi di ko seet te xamuñu li ko jot li ko tiital mooy yàlla moo gëñ ne mbugalam dana wàcc ci ñi ko yeeyoo ndegam Seydina Omar ak liggéey bi mu def yëpp def ko ci keppaaru yonent sallallahu alayhi wa sallam di ñaareelu ki gën ci xeet yi gannaaw Seydina Aboubacar ak yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy ci kon nan la ñu war a def inna adaba rabbika ma lahu min daafi am nañ ci yàlla bari musal ak kañ lay wàcc yow suñu borom mu ne yow ma tamuuru bés ba dana wëndeelu waaw ma tamuuru bés ba dana wëndeelu tataxarrak wa taduuru samaau nuuran bés bi nga xam ne asamaan si dana yëngatu dana wëndeelu yow ma tamuru bés ba dana wëndeelu samaawu asamaan si ma war naa ko wëndeelu asamaan si dina jógee palaasam di ci jaww ji ci suuf mujj mel ni bey dina mujj sax nooy ba mel ni kënt kale waaw bu ko defee sama borom naawal ko mu jël ko di poussière yow ma tamuuru samaau yow ma tubaddalu samaawaatu hmm? yow ma tubaddalu lardu gayra lardi wa samaawaati wa tasiiru te mooy bés ba dana dox aljibaalu montagne yi sayran ak dox waaw ah, montagne yi yëppay mucc di haba manthura haba manthura yàlla dana jël asamaan def ko poussière jël suuf si ñu dëkkee def ko poussière gannaaw asamaan ak suuf ñoo ndar képp adduna mooy kon adduna bi moo fiy jóge yow ma tubaddalu lardu ghayri lardi wa samaawaat bu ko defee muy mbégte ñeel ñi gëm parce que seen teraanga taxaw na waaye muy alkande ak tiitaange ñeel ñi weddi parce que seen alkande taxaw na waaw bés boobu muy bés penc fa waylun yawma yéen lil mukaddibiin nee na bés la bu nga xam ni ñi wetti woon yonent yi yëpp ci la seen toroxte bi taxawee ba faw fa waylun daruk mbugal yow ma idin bu keroogee lil mukadibin ñeel na ñi doon narloo yonent yi alladina ña nga xam ne hum ñoom fii xawdin yalaabun amuñu beneen beneen occupation bu dul caaxaan alladina hum fii xawdañ ci neen la ñu dëkk di xuus yalaabuna di ca fo nañu neen soxla woon nañu fo seetal tey àdduna bi ni ñu soxla woon neen ana kuy bas bi ak diw ñooy finaan ñëpp stress bu jeexee doo ci am doo ci am jàmm waaw ah. nga ku ci dul reer bu jeexee ñu ne ko doro bi moo ñëw bu jeexee ñu ne ruj bi ah. su jeexee ñu ne làmb ah. su jeexee ñu ngi ca eh, film ya ba ci weeru koor sax su ñëwee ñu nga ca sketch ya seetal loolu ku ne rek eh, indi koor ak diw doo gis mukk koor ak yonent yàlla muhammad ñu jàngal ñu ni mu doon woore doo gis mukk ñu ne koor ak eh, sayduna abubakar mu jàngal ñu ni ñu daan woore doo gis ñu ne mukk koor ak kenn ci ilimaan diin waaye ñi gën a ñàkk jom ci dëkk bi la ñoo indi ci télé bi ñu ñoo jàngal koor waaw wala ñu ñoo yàqal koor waaw te kenn du ko tudd waaw kenn du ko tudd alladina hum fi xawdi yalaabuun waaw nuñ ci yàlla boole mos bu ko yàlla tuddee ci yéeféer yi ah am nañ ci ceeb na waaw yàlla daala ngi tëkku yéeféer te e, melo wi mu leen décrire mooy fo fo moo jeexal seen àdduna amuñu woon beneen occupation bu doon wax alladina hum fii xawdin yalaabuun waaye loolu ban bés la mu ne yawma yudaawoon bés ba def na bumax leen ila naari bés ba def na bumax leen yowmal qiyaamati yéeféer bi dañ koy chaîner bu ko defee dootul mën a demal boppam safara te war na dem safara bu ko defee malaaka yi ñoo koy bëmax yow ma yudaawoon bés ba def na bëmax leen ila naari jahannama jëm naaru jahannama daan ak bëmax bu ko defee nag ñu ne leen safaraa ngi ndax buñ leen ko tuddalaan yowmal xiyaam ngeen ree tey nag haadihi naar allati kuntum biha tukaddibuun awa sihrun haadha boo defee rek eh, bu yonantu waxee ñu ne ko njabar nga bu jàngee alxuraan ñu ne njabar la soo indee kéemaan ñu ne njabar la waa safara si ngeen janool moom xanaa njabar la dugg leen ko ah leen ko góor ga mu ne ak a tàng yam nañ ci yàlla boole musa hadihi naar safaraan yi allati safara si nga xam ne kuntum nekkoon ngeen eh, bihi tukadiboon sabara si ngeen doon weddi mi ngi allati sabara si nga xam ne kuntum nekkoon ngeen biha ci moom tukadiboona di weddi waaw sabara si ngeen doon fen lookat mi ngi afa sixrun ndax njabar la haada mbugal mi le ngeen janool comme yéen lu ngeen janool rek tuddee ko lu mu doonul bii moom jabar la am amantum wala yéen laatu bu siroo la du ngeen gis islawha xaraf leen ko am ngeen choix nag fasbiru aw la tasbiru waaw su la neexee muñ du jëriñ su la neexee jooy du jëriñ xam nga yàlla lu ne rek dafay seet la mu xeetoog mu fayee ko ko ndax yéeféer ci àdduna dañu taxaw ne yàlla no lànk gëmunu la taxaw ne yonentu yàlla yi noo lànk gëmuñu leen moo xam waare nga wala waare oo ah. wax nañ ko Huud te buñ ko waxee Huud wax nañ ko yonent ci yépp waaw ah. wax nañ ko yonent ci yëpp waare nga wala waare woo duñu gëm sawaun alayna aw wa'adta am lam takun min al yàlla wax ko ca Baqara waaw ah. ne ko dafa am ñu nga xam ne namuma ci ñoom jub moo tax def leen li ngeen war a def rek waaye yemoon na ci ñoom ñu baax mukk waxul ne yemoon na ci yéen waxkat yi ci yéen wootekat ci yéen yonent yi waaye yemoon na ci ñoom la wax sawaawun alayhim kon nag seen ñàkk ngëm bu mu la chaîne yow li nga war a def mooy sa liggéey est-ce que nit yi daañ ko nango wala déet c'est pas ton problème wax moo tax yowmal xiyaamati su yàlla di mbugal daf leen di delloowaat situation ba ah wasbiru aw la tasbiru fasbiru aw la tasbiru bu ko defee ñu dugg safara yàlla nañ ci yàlla boole musul nekk fa di yooxu juróomi téeméeri at yàlla faale wu leen ñu ne nañ muñ juróomi téeméeri at yàlla faale wu leen ñu ne sawaaw naa leen ajazina am sabarna maa lana min maxiis yàlla ne sawaaun aleykum fasbiru aw la tasbiru sawaaun aleykum ñu ni ñun daal moo xam muñ nañ moo xam yooxu nañu duñ fi jóge yàlla ne bu leen neexee muñ bu leen neexee bañ a muñ waaye du ngeen fi jóge waaw ismawha xaraf leen ko fasbiru muñ leen aw la tasbiru wala bu leen muñ moo tax ndigal ci alquran soo ko xàmmeewul mën nga def catastrophe parce que alquran du lum digle rek muy farat su waxee aqimu salaa wa atu zakat dafay digle julli farata la waaye su waxee ida tabayatum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu daf lay xelal pour nga bind bor bi bu waxee wa ida xalaltum fastaado dafay daganal diglewut parce que tere woon na la rëbb léegi nag aj ji jeex na mën nga rëbb su waxee qul kunu xijaaratan aw xadiidan aw xalqan mimma yakburu fi sudurikum dafa lay dafa lay défier dafa lay sabote dafa lay wan ne faale woo ma la waaw nee na yéeféer yi nekk leen doj wala wëñ gu ñuul wala loo ëpp loolu waaw wala loo ëpp loolu ngeen xool lan ngeen mën ci man ak ndax mën ngeen fexe ba duma dimbalee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndigal dina ñëw fekk dafay tëkku waaw fekk dafay tëkku i'malu ma shi'tum yàlla bu la digalee tere la mu xëyee ne la defal lu la neex xamal ne mi ngi lay tëkku waaw nga tàggu sa papa mu ne la bàyyiwuma la nga insister mu ne la bàyyiwuma la ngay wax mu ne lay defal lu la neex bàyyiwu la daf lay tëkku i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ndigal dina ñëw sax fekk yàlla dafay transformer toute une nation ah qul kuunu waaw ah, kuunu qiradatan ah, kuunu qiradatan xaasiin waaw kuunu qiradatan xaasiin ah. nekk leen di golo la yàlla waxoon banu Israël naka la leen ko waxee rek ñu nekk di golo ñu nekk di golo wa jaala minhum alqiradata walxanazir wa abada taahut yal nañ ci yàlla boole Musa kunu qiradatan xaasiin ndigal takwin la ndigal dina ñëwit fekk sama borom dafay yejj waaw ah, mooy li mu wax fii islawha fasbiru aw la tasbiru moo tax soo goreelul lugal arabiya eh, bul firi alquran bu te benn la ci yi ñu war a goreel pour mën a firi alquran waaw al imaamu suyuti ci itqaan dana tudd fukki xam-xam ak juróom yu jàmm bi war a goreel pour mën a firi alquran tey nag ngay gis ko eh, arabiyatoom taxawut waaye comme télévision dafa bëri fu neex nga firi alquran yal nañu yàlla boole musal arabi yal nañu yàlla boole musal fasbiru muñ leen mbugalum safara mi aw la tasbiru wala bu leen muñ sawaun aji yemoo la aleykum ci yéen ci ngeen muñ walla ngeen bañu innama tujzawna xam leen na def na fay leen ma la ngeen nekkoon te amaloona di jëf moo ne seen salaire laa leen joxe wolof nee na ku ñu fay nga mer ku ñu fay nga mer ne la nga leble baaxul ku ñu fay nga mer nee na la nga leble baaxul yàlla na fu mu tuddee waid tudd fa adab dina fa tudd waid dina fa dina fa tudd naay fu mu tëkkoo rek diggee ndax jalaal ak jamal la pour nga boole xawf ak raja pour boole qabd ak bast pour nga boole ah, ragal ak yaakaar innal muttaqin naka ñiy ragaloon ñi yàlla ñi ñoom ca àdduna dinaa leen wax ca bés boobu ne leen kaay leen ma tere leen yàlla balaa teral balaa dugal ñi ragaloon yàlla aljanna dina leen teral ba ñu foog ne teraanga ja mooy aljanna mu soog leen tàmbal aljanna innal muttaqiina naka ñi ragal yàlla ñi fii jannaatin daañu nekk ci ay tool wa naimin ak i xéewal waaw aljanna tool lay firi waaw ah, xam naa bokkul la toolu saalum yi nag waaw faakihiina ñuy woy bànneexu loolu la jalaal wax waaye saaw yi nee na na ko tuddee rek ñuy borom yi waaw ñuy borom yi foyteef ca bànneexu la ñoo dëkk lana tax ñu bànneexu mu ne bi ma ataahum bi ma ataahum ci sababu la jox na leen ko rabbuhum borom seen wa waqaahum te fegal leen rabbuhum borom feen borom seen azaabal jahim mbugalum safara yàlla ngi leen jox xéewal te mu leer leen ne duñ ca jóg te balaa mu leen naa jox xéewal xamal na leen ne safara mi ngeen di dégg yéen pour yéen xamuloo ne xéewal lu mu neex neex su fekkee ne wóorul ne dana sax wala foog nga ne dana jeex walla gis nga eh, leneen ci sa wet te mu jamtalu ne mën naa am nga dugg ci mën na xajamal xibalka waaye yàlla dafa jox wa aljanna assurance ah ne leen yéen du ngeen dem safara parce que safara musiba la toroxte yeesu ba pare na aljanna ji du ngeen bi ma ataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum azaabal jahim kulu ñu ngi naan leen lekk leen washrabu te ngeen naan hani an mbir moom ngeen di ñu ñu ndokk bi ma kuntum ci sabab si la nekkoon ngeen taamaloona di ko jëf ci mbaax yàlla teet xam nga aljanna jëfu kenn dugalu fa nit kenn la jëfam dugalul aljanna wante comme yàlla dafa teet te ku tedd su amee gan su koy jox ñam muy ruus ruus lu dafa naan ko lekkal yaa ko moom pourtant moomu ko yow yaa ko moom wante da bëgg mu nekk à moo tax yàlla di wax waa aljanna ne leen yéen a ko jëf yonent nee na amul kenn ku jëfam di yóbbu aljanna ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man illa an yataxammadani llahu bi rahma lu xanaa yàlla subhanahu wa taala e, lambe ma muure ma yéen ma ndee bi rahmatihi tabaraka wa taala waaye yàlla sula lay lambee yërmandeem su la lambee yërmandeem daf lay yombalal jëf su ko defee mu mel ni yërmande yàlla moo la jëfloo jëf ji yàlla nangu ba dugal la aljanna illa an yataghammadani llahu bi rahmati moo tax waa jënn yàlla naan leen lekk leen naan leen bu leen généwu yéena ko jëf ñoom daal ña ngay foyu muttakiina mbir moom ña nga sukkandiku waaw ñu ngay woy sukkandiku ala sururin ci ay lal masfufati yu ñu range waaw waaw lal yu ñu range wax nañ ne lalu aljanna dina kawee dina kawe distance su juróomi téeméer ci at seetal loolu dina kawe distance su juróomi téeméeri at waaye jaam bi su nammee toog namm nammam rek mooy mooy mooy lal bi boo defee bu toogee mu demat ci xaal ba mu nekkoon te du lalu eh, eh, eh, adduna yi ak lu mu rafet rafet lal yoo xam ne la dahab la dahab mu kël la la bi dur wa zabarja waaye du durru fi du zabarjadu fii waaw du du du yàqutu fii danañ wax sax ne lal ba dana yaatoo ni diggante Makka wante eh, waxin la rek ci réyaayu xéwal gi waaw ina ala sururi masfufa lal bu nekk nag ak ba ba dend ak moom fu la neex tëdd ngay ngay yaata yumbe yaata yumbe ndeke amul àdduna aljanna la am waaw yal nañu yàlla yóbbu aljanna ya rabbi wa zawajnaahum ñu lënkale leen ah doo wax ñu sëyal leen ndax takk jabar amu fa ah takk amu fa ah ndax la yàlla yi wan yëpp yaa leen moom moom waaw ah, moom waaw ah, ñi mu lay wan yëpp yaa moom waaw wa zawajnaahum bi xuurin ayn lew na la doom waaw wa zawajnaahum ñu lënkale leen bi xuurin ayn ci ay xuur al ayn lanay xuur lanay ayn al xuur mooy weexaay bu tar al ayn mooy bët bu rëy jigéen bët bu rëy yàqu ko mukk waaye weexaay tamit yàqu ko ah wa zawajnaahum bi xuurin ayn la yàlla wax wa zawajnaahum ñu lënkale leen bi xuurin ci jigéen ñay way rafet tar ci weex riinin di way bëtu ah xam nga eh, soxna yi nekk fii lu jigéenu aljanna rafet rafet soxna yi nekk di julli te dem aljanna ñoo leen di dàq mir'atu azwajiha abdaanuhunna naam id nuuru abdaaniha yusri stirajati suñu mamba Cheikh Ahmed Bamba nee na yowmal qiyam bëggee seetu mën nga seetu ci sa ci sa soxna ndax taaram moo gën a leer gën a rafet dàq seetu dàq maanaam moo moo moo gën a leer làmp soo defee doo soxla seetu waaw waaw doo soxla seetu parce que seetu kese kese yow ci sa bopp seetu mënul refléter ci sa leer donc il foo que soxla sa soxna bon pour mën a gis sa bopp ci waxin wax pour wax la jigéen dafa bëgg taar ki gën a rafet ci li yàlla bind tey ji su defaroon ba ni ñu ngay génn ma nga am seetu bu mu yore léeg-léeg mu xoolaat boppam wax ndeysaan jigéen taar rek la bëgg wala yal na yàlla yokk leen taar yaara bi yokkuñu ko ñun ñëpp baaxal suñu baax yare suñu baax suñ ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boole ñu aljanna walladina amanu mubtada la walladina ñi nga xam ne amanu gëm nañu dafay dafay dugg ci beneen euh, ci beneen euh, sujet mooy ñi baax am njaboot ñu topp ca mbaax ga bu dee sax amuñu yitte jamaam ya amoon sama borom ne duma duma leen fay ci seen yitte ñoom waaye ci yitteem maam ya laa leen di fay walladina gaa ñi nga xam ne amano gëm na wattabaathum te topp leen zurriyaatihum wala zurriyatuhum seen njaboot ci mbaax ak ci yiw boo xam ne manqué na mbaaxu bàyya ak maam ya mu ne alxaq naa damay yéegal alxaq naa yéegal nañ bihim ci ñoom hurriyatihim seen njaboot ci seen maqaama bu dee sax tolloowuñu ak ñoom ci jëf wa ma alatnaahum te wàññiwuñu min amalihim ci seen jëf ñoom ñu baax ña min shay'in ci dara déedéet dañuy yokk rek ci jëfi doom ya maanaa yowmal qiyaamati nit dafa dugg aljanna nekk ci bërëb bu tedd bu kawe bu mucc ayib te aljanna yëpp a tedd yëpp a kawe yëpp a mucc ayib waaye dañu gën a kawante mu laajte ne sama doom diw anamu ñu ne ko ah moom de dugg na aljanna waaye mbaaxam yekkul ci mu mën a ñëw ci fi nga nekk yow mu ne sama borom man bi may jëf sama bopp laa doon jëfal ak sama njaboot yàlla ne sama waliyu bi daal bëgguma lu ko naqari indi leen ko njabootam indi gis nga Cheikh ma laaj nañ ko ndax baatu zurriya dinañ dafay làmboo Cheikh Ibrahima Niass waaw ah, mosuma gis ku mel ni moom ci tafsiru Quran yal nañu ko yàlla fay laaj nañ ko ci wàllu zuriya ndax dafay làmboo jaboot ak ay wayjur maanaam ay maam mu ne waawoo maanaam doom bi moom it mën na kawe baayam ci maqaam ca aljanna mu ne ah yàlla sama borom man de bi may jëf dama doon jëf ñaar sama bopp waaye ak sama wayjur yàlla ne sama waliyu bi daal bëgguma lu ko naqari tey naka noonu sëriñ bi ci barkeem danañ yéegal njabootam ci jëfam moo tax sëriñ bi eh, nga ne moom nga topp jéemal a jaar ci yoonam boo defee yàlla mën na la yéege ci maqaama waaw dégg naa benn nettali ñu ne suñu baay ba eh, sëriñ Faadilu Mbàkke dafa dugg ci otoom moo chauffeuram am mbokk bu ñu romb xam naa ci yoon wi ñu jël ko di ko yóbbaale mu yéex a xàmmee sëriñ bi nag ndax mi ngi ci kanam naka lay wàcce rek gis ko këpp ci ay loxoom ne ko mbàkkee bu ëllëgee nii rek mu ne ah, ci yoon yi laa la fekk de waaw ah, xam nga li muy firi mooy ki nga bëgg mu yóbbaale la jaaral ci yoon wi mu jaar ndax boo fekkee bu fekkee nga nekk ci beneen yoon du la fa mën du la mën romb ba lay yóbbaale waaw ah. yal nañu boole ci ñiy yóbbuwaale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw walladina amanu ñi nga xam ne gëm nañu wattabaatuhum te topp leen durriyatuhum njaboot seen bi imaanin ci ngëm boo xam ne matul ci mët ak ci kawe ngëmu bàyya maanaam yeggu ca alxaq naa daañu yéegal alxaq naa yéegal nañ bihim ci ñoom zurriyaatihim njaboot seen waaw ma alatnaahum te wàññewuñu min amalihim ci seen jëf min cheyin dara kullu mri'in cam su ne nag bépp nit cam bi ma kasaba ca la def ci mbaax ak ci musiba rahiinun kuñ ca tayle ku nekk loo def bu dee mbaax la dañ la ko fay bu dee musiba dañ la ko mbugal lu dul jéggal am yàlla yàlla jéggale arab bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mel ni daal jaam bi dañ ko takkeeg njëfam mu nekk ci raqabam waaw ah. du ca mucc mukk waaw ah. kama tadiinu lu la yoon ci yàlla sallallahu alayhi wa wax yàlla ngi continuer ci waa aljanna yi ba léegi mu ne waa am da naahum ñu tëbbu leen waaw maanaam ñu den di dolli waxtu gannaaw wax bi faakihatin ci foyteef walaxmin ak yàpp mimma ca laale moom yashtahuna dañ ko bëgg waaw bu xam nga iraada rek mu am yàlla moo ko moom daf koy jox waa aljanna nag innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun waaw aljanna lu borom namm rek mu ñëw lu borom namm wa amdadnaahu ñu tëbb leen ñu dolli bi fakihatin ci foyte waaw xeetu fruit boo wala xin yàpp wi gis daf leen nakiraal ngir nga xam ne du benn mimma ca la nga xam ne yëf yatanaazauna ña ngay joxante ci seen diggante fiyaa ca àdduna ca kaasi sàngara kës buñ ko waxee rek mooy lu fees ak sàngara wala mu def dara bu amul dara arab du tuddee kaas kaas ña ngay jottali di joxante ña ngay joxante kaasu sàngara yoo xam ne laalawun déet caaxaan fii haa ca nekk kaasu sàngara fii de caaxaan na ci nekk ndax gëjante waaye kaasu sàngara ba ñu joxante foofu mu ne laa laaw déet caaxaan fii haa da ca nekk wala te riimun déet bàkkaar it di ci jóge xam nga euh, tanaazoo la la jëfandikoo te tanaazoo ci wàllu dafa rafet ay xarit kuy jox kaas bale kële jox bale ñuy xëccoo naan gi ci ay xarit dafa rafet waaye bu dee lek xëccoo lekk rafetul moo tax waxul tanazo ci lekk waaw yàlla ku rafet ni muy mellalee yëf yi la ndax moo leen bind alaa yaalamu man xalaq kenn gënu ko xam li mu xam wa huwa latiful xabir subhanahu wa taala laa lawun fiha wala tadrib ndax fa la ñuy yem mu ne a ah, déedéet wa yatuufu dana wër alayhim ci ñoom pour di leen liggéeyal service bu ñu soxla xilmaanun ay xale lahum yooyu ñeel na leen ka annahum daanaka ñoom ci taar ak ci ñewante lulu un wurusu lulu la maknuun bu ñu nukkal maknuun bu ñu nëbbu ci sadafam xam nga wurusu lulu balaa mu rafet mu nekk ci biir sadafam waaw maanaam taaram balaa moom mat dëkk nga gis ko ci biir sadafam waaw ñoom seen taar dafa rafet bu boo ko gisee da ngay foog ne lëkkoo waxuñu lëkkoo bu ñu sànni ci mbalit ndax du rafetati waxuñu lëkkoo bu loxo yi bari ndax du rafetati mais lëkkoo bu ñuy bu ñu bi ngay daj bi ngay soog a daj nga am pour gis ko fekk mi ngi ci biir sadafam nee na noonu la rafetee moo tax bi ñu jàngee aaya ji sallallahu alayhi wa moo ko jàng ñu ne ko alxaadim ka lu'lu il maknun dafa kay vel maxdum ndigam surga yi ñoo mel noonu ci taar waaye ñooñ aljana ñi ñuy liggéeyal nag nu ñu mel yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ne mi ngi mel ni weer wi bu génnee leelatul bat ni muy kawee weer yépp ci beneen riwaaya weer wi bu génnee laylatul badr na mu leeree ak na mu matee ni gën a leeree gën a rafetee biddiw bi gën a ndaw ci biddiw yi noonu la waa aljanna di gën a rafetee xale yi leen di servir tonte xale yi mel nañu al-lu'lu'ul maknun yàlla euh, xoolal leçon bi mu ñuy jàngal fii mu jàngal ne taar taar balaa mët la taaru jafe waaye bu dee li taaru ñépp ci am accès taar ba dootul mët taar ba dootul attiré taar ba dootul rafetati ci ñëpp loolu tax jigéen mi nga xam ne li yàlla bind moo ci taaru mu muuruloo ko mu muuruloo ko parce que li yàlla bind yëpp jigéen moo ci gën a taaru est jigéen xam na loolu hmm? moo tax ku ñu gis la nga bokk ak ñoom rek dootuñu am sago ba ñu gisee Seydina Yusuf ja taar ba amatuñu sago ci moom parce que ñoom ñoo moom taar ah. parce que ñoom moom taar mais fitna bi leen dal ci Yusuf mënu leen woon dal ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam pourquoi parce que yonentu mooy joxe taar te jalaali yëtu bi mooy tax moom mooy moom mooy sabab ci taal yi te jalaali yëtoom tax na mënuloo ko franchir pour mën a fitnawu ci taaram moo tax ñi gisoon taaram ci saxaaba yi matuñu fukk maanaam ñi ñi mënoon ñi gisoon kanamam waaw parce que euh, effet taar bi rek la nga mën gis mais taaru yonent bi ci boppam kenn mënu ko gis wa sallallahu alayhi wa sallam jigéen bu taaru boobu nag la yàlla wax ne na muuru fan yi dégg naa benn polémique ci senegal ñu ne waaw jigéen euh, kenn muuru loowu ko parce que muur bi dafa am cause cause bi mooy dafa euh, dafay dafay dafay dañuy bañ moo am complexe xam naa euh, kii wax loolu muy suñu najaay boobu Ahmed Niass dafa juum waaw juum bi mooy dalika adna an yu'raf na ngir bañ ñu xàmmee leen bi yàlla tudd ci laxsam boobu aaya bi njëkk a wàcc la ci wàllu xijaab te du cause boo xam ne dafay tax xijaab du nekk farata parce que booy jël ayat alquran yi il faut nga jël leen ñoom ñëpp pour mën a atti walla nga daanu ndax ci suuratu nuur yàlla deful taxis yàlla dafa digale tere wa qul lil muminaati yaxdudna min absaarihin wa yaxfadna furujahun wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha wal yadrib dafa tere digle digle tere dafa tere ñu feeñal seen yaram digle ñu muur ko وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن moo tax amul benn ci xam-xam ci ñoñ xam ñu lislaam yi ñu mos a am ñaari werante ci ne jigéen dafa war a muur amut te itamit ndax dafay muur kanamam ak du ko muur la ñenn ñi di werante waaye ndax boppam mën na ko bàyyi kooku eh, ndëgu bu surox la eh, dégg naa sax mu ne xadis bi ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa rëbb jigéen yi jokk karaw mu ne xadis bi wérul eh, la nag parce que xadis bi mi ngi ci Buxaari mi ngi ci Muslim Abdullah ibn Mas'ud solo na xadis bi am na yeneen riwaayaat sax amul xadis eh, amul yoon woo mën a jaarale pour ne xadis boobu yoon kooku mënul nekk ak wax ne yonent bi du rëbbu an kay yonent bi dina rëbbu waxin la waaye bëri na jëf yoo xam ne yonent bi rëbbu na ko problème bi mooy eh, li mu wax ne problème de niveau dafa am senegal kooku dëgg la c'est une vérité wallahi wal Qur'an al azim nee na di nga fekk primairien bu ñuy laaj laaju universitaire wala laaju professeur wala dëkk mais nag moom niveau ci wàllu xadis dafay nekk niveau primaire kon parce que euh, boo jàngul ilmu mustalahil xadis doo am jumtuwaay yooyu wërale wala yooyu euh, daanele xadis fi mu waroon a wax mooy euh, cause bi tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam tere Euh, yokk ak ban yokk la tere par rapport ak compréhension wu borom xam-xam bi su fekkee ne yokk karawu nit ci karawu nit kooku ñoom ñëpp d'accord nañ dina def ko tere mais su fekkee ne li ngay yokk du karawu nit kooku dafa am wuti ça il faut l'accepter ça il faut l'accepter depuis le début borom xam-xam yi dañu wutee ci ndax karaw bi ñu tere ñu yokk ko mooy bi nga xam ne karawu nit la kese walla yëpp la beneen bi di gis yeneen boroom xam-xam yuy aborder lan a tax est-ce wor bi ngay wor ne wor bi ngay wor di wane ne lii yow la te du yow loolu looloo tax ñu tere ko wala soppi gi ngay soppi bindu yàlla loolu tamit jar na gëstu wante Euh, doo rek généraliser ñëw fexe ba lu yonantu tere nga daganal ko c'est parce que yow nii nga ko déggee wala jàpp nga ne nangam ak nangam déedéet loolu du du du loolu du diine avec tout le respect ko lui doit mais nag euh, nit ku am xel la nit ku ràññee la te li mu wax ci ne bëri na ñuy wax ci diine te niveau bi ñuy waxee du seen niveau kooku li mu wax dëgg la te ñi mu critiqué noonu ñëpp ci lañ bokk amul sax werante waaw ah. ñoom ñëpp ci lañ bokk waaw ah. ngeen baal ma nag mais ñoom ñëpp ci lañ bokk te bëri na ah, bëri na moo tax ñu bëri ci ñiy waxtaan su ma sañoon ñu waxtaan rek ci niveau yi ñu toll dégg wante question wu euh, ubbi lii nit ñi di laaj question te maîtriser wuloo maîtriser wuloo ilmu usulil fiqh waxuma la sa ilmu usulul fiqh waaye sa usulul madhab waxuma la sax sa usulul madhab waaye sa fiqhul madhab waxuma la sax sa fiqhul madhab waaye téere yi nga xam ni ñoom nga jàng ci sa fiqhu madhab boo xoolee wutee ya ca am doo ko mën a ràññale yow ubbe warul te bëri na nag waaw na eh, loolu nañ ci bàyyi nañ ci bàyyi xel eh, Ahmed dafa bu métti waaw dafa juum bu métti wante nag li mu wax am na lu ci nekk dëgg bu wér a wér ci bàyyi xel waaw suñu borom daal wane ne ne wane ne lu eh, lu balaa rafet mu nekk ci sadafam waaw te jigéen nag moo dàq lu lu kon nag nañ ko bàyyi ci sadafam waaye bu fekkee li ñu war xam ci yow en tant que jëkkër mbedd mi yépp ci jot ah wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaloon waa aljanna nag di laaj di laajante wa aqbala jublu baaduhum lenn ci ñoom ala baadin ca lenn yatasaaluuna ña ngaa laajante ak laaju bànneexu ak laaju reconnaissance xéwal bi ñu nekkee fàttaliku nga bi ñu nekkee adduna am am na ci ñoom sax ñoo xam ne dootuñu fàttaliku ne nekkoon nañu adduna am na ñoo ne ah, ah man mosuma nekk adduna fii laa juddoo fii fii fii ana nachatu huna lam arif la arif dunia am na ñu nga xam ne dinañ fàttaliku waaw xaaloo ña nga naan innaa naka ñun kun naa nekkoon nañ xablu bu njëkk fii ahlinaa ci suñuy ñoon ci àdduna mushfiqiina di wéyee ragal ragaloon nañu mbugalum yàlla waaye fa na fa mën na xéewe laahu yàlla alaynaa ci ñun ba jéggal ñu wa waqaanaa tam ñu aadaaba samuum ngalawal safara wii ñuy wax samuum tudde nañ ko samuum ndax samuum ci cosaan ngalaw lu tàng lay doon na naka ñun na nekkoon nañ min xablu ca àdduna nad'uuhu di ñaan suñu borom subhanahu wa taala annahu ngir naka moom huwa moom albarru mooy aji baax arrahim mooy aji yërëm ñun xam giñ xamoon ci moom ak baax gi baax xam giñ xamoon ci moom mbaax ak yërmande taxoon na fuñ toll ragal ragal ñu ngi koy ñaan di yaakaar waaye suñu yaakaar tasut ay ji fekk nañu saydatuna Xafsa mu koy jàng nit ka jóge fa dem ca marché ba lu yàgg ñëwaat fekk ko ma ngay jàng di joxe nii la salaf meloon ak alquran fa zakkir saxal ci fàttali yow yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam liñ naan la dof nga njabarkat nga bum la découragé saxal ci waaraate fama anta déet yow bi nicmati rabbika ci sababi xéwalu sa borom déet yow bi kaahinin ngay bu xaaba buy joxe xabaar yi bu xaaba te ca dara wala majnuunin du caagan ngay dof yàlla xéwale na la xéwal goo ne mucc nga ci kahanatu mucc nga ci junoon yow dootoo dofati duula buxaaba ndax ki lay wax bokkul ak kiy wax buxaaba yi yàlla lay wax lii dal nit ba mu dof ci sa barke lañ ko bind kon mënulaa dof loo am yaquluuna am bàyyil yàlla dana jëfandikoo fii fukki am ak juróom te arab buy làccee ci am ma ngay yadd ma ngay critiquer ma ngay def mise en garde ma ngay euh, reprocher ma ngay blâmer am ndax yaquluuna dañuy wax ne yonent bi shaairun woykat la rek natarabbasu boo xam ne dañuy muñandiku bii ci moom reybal ma nooni xew-xew yi dee moom daal woykat la rek nañ ko muñal léegi tey mu dee ni ñoom naabixatu zubyaani yeeg euh, alqamatul baxleeg euh, alqamatul baxle ak zuhair ibn abi salma dee woon ñu fàtte leen bu ñu fàtte ko wallahi ñu ngi nii di firi alquranam ji ko jox ci New York fàttewuñ ko qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu ñandiku leen sama alku fa inni man maakum way aji ànd min almutarabbisiina bokk ci way muñandiku seen alaku yàlla mbugal na leen rey leen yowmu badri juróom-ñaar fukk ci seen njiit am taamuruhum wala daf leen di digal axlaamuhum ay xel seen bi haada foog nga ne seen xel yi ñoo leen di digal lii wax ji ñuy wax naan njabar nga wala waykat nga wala buxaaba nga wala dof nga defe nga ne xel dana gis ku toll ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ni matee di ko digal loolu déedéet am taamurum ahlaamu bi am wala hum ñoom dañoo nekk rek xaw xawmun dañoo nekk diw nit rek taaxoo na ñuy woy bew seenuk bew ak seenuk rëyi jural leen ñuy wax loolu am na wala dañuy wax ne taqawwalahu moom moo fente alquran kenn joxut ko ko bal li fi nekk rek laa yuminoona mooy gëmuñu ngir gërëy su fekkee ne dañoo claim ne yow yaa ko indi yaa ko fent faliyaatu nañu dikkee bi xadiisin ci alquran mislihi gu mel ni moom bi xadiisin ci luñ fent ci wax mislihi gu mel ni alquran in kaanu ndem nekk nañu saadiqina di wax dëgg am bayl ndax dañoo yaakaar ne xuliqoo bindeef na leen min gayri cheyin ci lu dara dañoo yaakaar ne ñoom dañ leen a bind te amuñ aji bind loolu mënta nekk di kuñ bind rek am na ku la bind am wala ñoom hum ñoom alxaalixoona ñooy bind seen bopp ñoom xam nañ ne xel nanguwut kuñ bind te amula ku la bind te kuñ ñàkk mënta bind boppam loolu li muy firi mooy fokk am na ku bind te ki bind kooku mooy yàlla lu tax duñ ko gëm wéetal ko topp ay yonantam ak i am xalaqu wala ñoom ñoo bind am xalaqu wala ñoom ñoo bind samawaati asamaani juróom-ñaar wala arda ak suufi juróom-ñaar xam ngeen xel asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar yàllaa ko bind lu tax duñ ko jaamu bon bal li fi nekk daal laa yuqinoona wóoluwuñu bu ñu amoon yaqiin konoon danañ gëm yonent bi sallallahu alayhi wa am indahum wala daf leen a ñeel xazaa'inu rabbika ndam bi borom sa trésor yàlla yi fa mu denc nubu atu ak wërsëg ndax ñoo ko moom ndax dañ fa am accès bay jël nubu a di ko jag leen ku leen neex wala di jël wërsëg di ko jox leen ku leen neex bu fekkee ne ñoom am nañ accès foofu mën nañoo décider kuy nekk yonent su fekkee amuñu fa accès te amuñu fa accès lu tax kon ñu war a bañ ne yow yonent nga lu tax ñu war a opposé ci nga nekk yonent lu tax nangooñ ne man maa la def yonent am wala ñoom hum ñoom almusaytiroona ñooy way not yi ñoom ñoom ndax dañoo nekk en commande booy mën a commandé yëf yi am wala lahum daf leen ñeexal sulamun ay échelle wala ñoom dañoo am ay échelle ay yéeguwaay yuy yéeg yu leen di yéegee asamaan yastamicuuna ñuy dégg fii ca biir yéeguwaay wa waxi yàlla ji muy wax ak malaaka yi wala waxi malaaka yi ba tax ñu mën a lay yow li ngay wax duut waxi yàlla wala ñu mën a lay ñoom xam nañu la ca xëybu su fekkee ne ñoom am na kuy yéegee ci ñoom kuy yéeg ci ñoom di déglu fal yaati na dikk mustamiuum aji woote dégg ci ñoom bi sultaanin ci lay mu béy ne waaye ji biir wax na ñu it ne sama borom dafa am ay doom yu jigéen mooy malaayka yi am lahu ndax daf koy ñeel albanaatu doom yu jigéen wala kum ñeel leen albanoona doom yu góor fu ngeen jëlee loolu ndax dangeen a am accès ci rey bu ba xam loolu xanaa yéen bu ngeen demee bay fenal yàlla sax ngeen fenal ko jox ko li ngeen bëgg waaye yéen doom yu góor ngeen bëgg di ko fenal nag moom ak doom yu jigéen am tas xam nga doom bu jigéen bu bu bonoon yonentu sallallahu alayhi wa du def nim mu Fatima yàlla dafa ñëw jàngal eh, xabaara yépp ne leen doom bu jigéen ak doom bu góor waaye arab comme ñoom dañu bëggoon doom bu lu tax ñuy askane yàlla doom yu jigéen mooy lu leen neex la ñuy waxe am wala tasaluhum dang leen